nañu fay loolu mooy wax ci. ñëw ci nag euh, président de la république du Sénégal son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, jóge na ci réewum Sénégal dem ci invitation bu ñu ko invité woon demul woon sax ngir seeti le président Emmanuel Macron <laughs> mais ci diggante ba dafa am polémique bi am ndax euh, France 24 dafa bind nii le président waaw <laughs> le président Macron va recevoir. Euh, accordé un entretien je pense au Sénégalais Bassirou Diomaye Faye RTS aussi Pape Alé Niang répliqué <laughs> daal ni le président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye va accorder un entretien aux Français Emmanuel. bien sûr bien sûr waaw waaw mais léegi bu ci dalul du metti xam nga loolu rek mooy mooy fulla rek fulla ak fayda rek xam nga mbir mi euh, wuré wi da dalewut tey wuré wi ma nga dale ca Mélenchon ja dañ naan gone bu la gone tooñee danga koy jéggi du ma bàyyam am foofu la Ousmane Sonko duma waa ji waa ji it jekkadi ci France moom tey moo am intérêt président Diomaye may ko audience <laughs> moom moo am intérêt tey moo tax càkkutéef gi tey boo amee fu muy jógee ci France la maanaam moom moo buruxlu ci maanaam demuk maanaam boo leen jàkkaarloo da nga xam ne Macron Euh, gis na kum ku ku kum nam ma gis kum yàkkamtee gis loolu nga ciy gis ci seen kanam communication verbal ak noo verbale yépp loolu nga ciy gis euh, ci affaire bi mu dem fa nag ak euh, avec la tête haute dem fa même gisante ak sénégalais yi sànq nii rek laata ñuy tàllal ñuy kii rek sama benn naataango suñ benn naataango surtout man coalition bi nga xam ne moom laa bokkee woon ci joomaay président muy ñun ñi ëpp kii njiit li muy Ibnu Sow bokk na ci ñi président Diomaye recevoir. waaye <laughs> lii nag révélation la maanaam lii moom xam naa yow yaa koy <laughs> yaay am primeur bi ndax fii ngay nekk lay xoyam xoyme daanaka boo xoolee ma doon euh, nu mu tudd conférence bi ñu doon def sax fii laa ko yeggale dama pare yeggale ma ko sax dama pare déglu ko déglu ay quelque ci doog ak yéen maanaam ni mu demee daal baleeg bàyyi jomaay gi jàppal ne jeggagul diaspora ndax ki nekk ci ambassade bi frère voilà frère Marème fay Sall la ñoo bokk jenn ndey waaw ñoo bokk jenn ndey ñay war a gis président Diomaye ña ko gis moom moo ko doon lijjanti jël ci opposition bi mouvance présidentielle cinq ak yooyu daal di jël beneen soxna boo xam ne ñu ngi ko dugalaat sax ci biir ban ne woon sax ki suñ naataango bi du wax di ko di jaajëfal maître Ablaye Tine nga xam ne nit ku baax la bi président Ibnu waxee moo ne ko yow kon da ngaa war a wax jëlal sama place mu wax ak moom lu am solo mu déglu ko waaye it waa wàllu wax nañ fa xam nga ñu baree ngi doon wax waa PDS lu téye ñu falu nga xam ne président Diomaye am fula ku ñuy wax may Touré moo ko laaj lu tax waa PDS gisuñu seen bopp ci gouvernement wu yees yi mu ne ko ba may defar sama gouvernement woolu naa seen kii nu mu tuddati seen secrétaire général adjoint Karim la ma ko wax la ma wax dégg naa ko la ma ko wax dégg naa ko kon ubbi woon nay wuntam kon bu fekkee ne PDS bokk ci ñoom dañ dem laaj lu tax nañ laaj Karim lu tax PDS bokk ci moo tax parfois mbir yi moom di ci tey da ciy baax voilà loolu tent beneen bi mooy ku fa teewal waa Yewwi wax na euh, euh, Barthélémy Dias boobaak léegi mi ngi bëgg a gis président de la république en tant que maire de Dakar mu ne ko man maire de dakaar rek maire Ndiaga ñaaw ba ma dëkk laa yemale maire maire la bu dee Bartel man chaque jour maa ngi gis sante ak sénégalais yu ma bëgg a kii yëpp su ma bëggee recevoir mën naa ko recevoir mais en tant que maire boole naa ko ak ministre bi war loolu bu fekkee ne wàllu xaalis lu wàllu état war a def nàngam ak nangam boole naa ko ministre bi yor wàllu waaw da waaw mais déedéet déedéet déedéet déedéet du tuuti déedéet déedéet ma ne ko en tant que maire maire yëpp man naa lay na gis maanaam bu dee liggéeyu maire dafa am ministre bu ko yore xam nga tey problème bi mooy nag du ñu am ministre de collectivité territoriale mu war a ab waxantaane ak maire bi ngay ñëw mais ni mu war a recevoir Barth kon noonu la war a recevoir maire Mbàkke maire mbadaxul maire Thilmakha Mbakol maire bu nekk loolu mooy dëgg li mu maanaam bu ñu yaakaaree ne xam nga léegi lan lañ am dañu am président am première ministre bu fees place am am gouvernement am ay ministre kenn ku nekk di jouer sa rôle ñun nekkuñ foo xam ne kon danga naan Marème fay Sall tax ñu fal ñoo nangam ak nangam wala nga jàkkaar ne ku am problème danga fi war a jéggi ñëpp parce que ministre bi du dara wala ab benn genre lu fi taxaw nii la président bi moo war a régler yëpp déedéet président bi ma nga fële ca kaw bu dee en tant que maire nga ko bëgg a gis yaa yëpp a ci am bu fekkee ne ma en tant que maire la am na ministre yoo xam ci wàllu collectivité euh, territoriale ñoo fi nekk demal ñu gis. waa léegi waaw. léegi Alioune du maire plateau xanaa kon Alioune Ndoye ci gën a jekk. waa non non déedéet xam nga boo xasee wax capital bi rek kii booy nekk ba maire nekk capital bi kii jiite réew mi defar capital bi nekk ci réew mi nag président waruta a bundu man dama gëm ne. dañu war a yegg foo xam ne suñ budget bi bu dee dix mille milliards bientôt ñu yegg fa dix mille milliards wala bu dee tey sept mille milliards yi mu nekk man dama gëm ne trois mille milliards yi dafa war a dem directement ci maire yi ñu doxal ko ñu koy doxal ba pare ñu teg leen bët nag di xool ah say no saytu gu met gu gu gu mat sëkk parce que tey non bien sûr maire war na man seen compétence yi war nañ ci mën a yokk entretenir ay ay ay route wala dem bay defar sax yenn tali yi am na yoo xam ne boo demee Amérique wala nga dem ci yenn grande nation yi ay maire ñoo koy def hmm? voilà voilà voilà voilà nit ñi maire bi lañ lañ xam ñoom lañ fal ci affaire ñoo gën a ci wàllu proximité ñoom moom lañ gën a jege yoon sama neel bi leer naa dama naan ni fàtte na <laughs> xam nga loolu daal lu ci am solo la loo xam ne man gis naa président def ko ci mbir mi nga xam ne daal am nañu président président de la République gère l'État, le première ministre gère le gouvernement, nous les patriotes, les sympathisants et ñooñu gère l'opposition. ah oh, déet ah, ah déet ñun ñooy gérer opposition ñun non ñun loolu du problème dama ne ñun ñooy gérer l'opposition yi bi daax ñun kay amul problème ci njëkk rek nag. ah bañ a jaay neex non xam nga nag kam wax la chef de l'état yëpp yëpp ay jaay neex ñoom ñëpp ay jaay neex gis nga xam naa bu ma paree naa la illustreel ay image yu doy waar nga jàngat Poutine ak Sarkozy wala nga jàngat Trump surtout ak Macron poignée de main nii bii fare kaw képp dañ koy xëccoo gis nga booy xool hmm, bi Macron di nuyu Diomaye xam nga dane nii jox ma sa loxo loxo joomaay fare kaw ñoom dèjà léegi kii mooy wane ne kii a nekk ci position de for léegi nga gis sa waay jël loxo bi xaw a def nii baam dans un premier temps xawu ko ñemee sax mais dafa def nii mais biñ ñëwee bay tàggoo la même chose amaat mu jël loxoom teg xam nga fan la joomaay fayoo nekkoon nii boobu mooy petit toog <laughs> yooyu yow yaa koy xeeb mais chef comme i gone comme ay xale yu ndaw laa la wax naan ni ay boo ma njoosee ma njoos la <laughs> boo am na boo xam ne mook mook mook mook mook mook euh, trompe non dañuy bësante kii bës ba nga xam ne mujj yi comme sawaaye gën a jàpp ak yooyu te mu kii mu mujj daal di jëlaat loxoom bi daal di tegaat ne bon xam nga yooyu yëpp dañ koy defante nappante fii yooyu yooyu yëpp day day mais mais kii la daal xam nga kii la quoi sarme la dafa dafa neex. dafa xaw a kii quoi man yooyu dama détails yooyu euh, ku mel ni man da ciy bàyyi xel quoi. pour pour argumenter. xam non bien sûr non xam nga tey benn mooy ñëw na am fulla am ak fayda am ko am fulla la mais li ko ko defit fi Afrique toll maanaam tey ñun suñu doole mooy Mali mooy Guinée mooy Burkina mooy mooy mooy joomaay suñu borom daf ko daf ko dimbale lu bari dafay yomb ci moom am na loo xam ne maanaam président africain yenn yi nga xam ne jote na ñoo France ba toog ñeneen ñi ci des mënuñ ci dara moom ñu koy doog a fal xam nga dañu ne woon président Sonko mooy dem fële ci euh, waa putschiste yi ñuy wax waaw kay comme noonu ñu ne en tant que président du parti moom moo fay dem président Diomaye dem ci dem ci CEDEAO ak yooyu non non non daf ko jaratut parce que bi état bu gana ci la situation bi décanté woo ñooñu ñoo ko waxal seen bopp ne ko mën na cee dox léegi mu far dem ci léegi loolu dafa am lu muy yombal léegi nag loolu nag diplomatie da nga def li ngay def ci kaf ak ree mais téye fulla ja lii suñu doole mooy souveraineté bi nga xam ne moom lañ doon wootee te loolu ci lañ nekk muy base yi daf fiy jóge xam nga France déclaré na na dana fi jële trois cent xaw ma nangam nag yooyu yëpp moom moom loolu la wax mais liy wax ji mooy daf fiy jóge mën nañu am ma ne mën nañu am coopération ci wàllu arme jokkalante ak yu demee formation mais mel ni Macky Sall di def ñu jëlee fi Wade jëlee fi yaakaar naa deux mille dix ca euh, veillu 4 avril ba ñu jëlee fi seen base yi ak li ñu wax noonu keroog bi ñuy wàcce drapeau France di yéegal bu Sénégal keroog sama xol bi ni wan wanagu mbott la mel Macky Sall li ñëwaat wane ne wane ne Abdoulaye Wade de genre day def affaire populisme affaire nangam nangam yooyu tax xamul li xew dem na ba ci dem Demba di Dupont gii fi Wade defoon nga xam ne lim lay wan mooy. ñun suñuy maam ñoo dem geeral ñi ñoo leen dimbale ba ñuy làqatu suñu ginnaaw mu dindi fa nee na yee dafay def estati mbay jaañ pour wane na noo ko mbay eh, xaw ma kii mbay jaañ sol soldaar bu nangam dara faalewul mbay jaañ faalewul maami mbay jaañ Macky Sall la mel noonu France képp la faale estati bii damay ñaan président Diomaye bu sëñ mbay jaañ bii na ko yóbbu feneen dellool ñu Demba ak Dipon ci gaar bi parce que saaga la ci France maa la wax te saaga la ci France te saaga yooyu daf fa baax amerique am na benn statut boo xam ne benn tubaab la boo xam ne daf doon bundu xataal noir yi ak yooyu ñu bàyyi woon fa euh, kii am noir yi nag ni mu fa nekk saa su nekk saa yi ñu kii di ko joxar bi ba bis ñu ne dañ ko fay jëlee ñiy wax yooyu benn révérend benn pa boo xam ne làbbe la mu ne leen lii dañ ko fay bàyyi parce que loolu li ngeen defoon te mu bon muy fàttali ne ñin lii ngeen def yooyu dafa am solo mais Macky Sall la fi nekkal. te lépp lu muy def pour naa falu rek baax na bu ko dee def ko ci bo bodd konte ci biir xeet dana ko def bu fekkee ne bégal France dana ko def bu fekkee ne wàcce takk der yi pour ñuy toroxal nit ñi dana ko def. d'accord euh, président Diomaye Faye ci expérience am ci réew mi. Mhm. na ko nga xam autorité kay amu ko man mais mais nag xam ko jëlee ci moom. Mhm. parce que tamit mbir moom nit jaar ci biir ba wàcc fa mu essayé mën na laa wan ba doo fa jaar ba essayé. Mhm. fa mu amee ndax mu wax la mais Abdou juuf moom sa li fi yàqu bokk na ci li ko yàq xam nga nag nit ñi dañu gaaw a fàtte. waaye wax dëgg yàlla man Abdou Diouf ci wàllu mbay mi équipement rural yi Abdou Diouf euh, Senghor ko fi def bi Abdou Diouf ñëwee def fi dara non lan la fi def Abdou Diouf lan la maanaam ay machine golo yi fii daan nekk ak ak nu mu tudd euh, araraay yëpp Senghor Abdou Diouf a maam daf ñu fi daf ñoo tardeel loolu mooy wax ji xam nga nag gars yi boo waxee homme d'état homme d'état mais man homme d'état moom sax ay man je préfère moom nit ki yëngu ba pare def ay réalisation mais réalisation yu baax bañ a yàq kii mais ñuy wax ni yëpp gis nga naan ay état ak nangam la sénégalais ci boppam moo baax moo neex a yor képp loolu moo fi nekk. ñun suñu bopp. dama ne. waaw waaw no expérience waaw non foofu laay waxee non mag moom. mag moom ku amee at surtout jaar fi nga jaar. jege ko dalay yokk wàññiwula dara mais nag euh, Abdou Diouf il n'a rien d'extraordinaire. comme ni nga xamee ne moom la Diomaye seetee ci woon Ablaye Wade noonu la ko defee amul amul amul kii maanaam président mu mën a wax ak ñëpp waxtaan ak ñëpp loolu mooy li ko jig mooy li am solo mais nag bëgg a yóbbu Abdou Diouf fu mu amul nag yeggu fa de dëgg yàlla. waaw ah. président Diomaye aussi euh, euh, ba tëdd ca naaj wax dañ loolu cadeau cadeau empoisonné la. waaw ah, maa la ko wax loolu boo xasoon def. Mm. Mali dootoo leen woo bañ wóolu la. te loolu la France di jéem a liggéey loolu pièce la heureusement bi mu jéggee pièce boobu moo tax nga xam ne président waaw maa la ko wax président Diomaye du ku ndaw wallaay lii Ousmane ko wax ne jamono yii biñ koy fal jàppal ne mu gën ci Sénégal man loolu laa gëm waaw yàlla ko yàlla jàppale wallaay nit ku baax waaw ko ko ko koy star bi nag waaw ah, kooku moom mooy star bi eh, président jonge na nag président saay ndagu si fa ko gars yi gis ci sumbuy jun man bi ma ko gars yi tegalee mais gars yi xa waaye yow gars yi xaraj nañ nekkee président daa nduggi woon ah ah, eh, eh, ah ah yonent yàlla Mamadou kay comme moom it da daan ndugg kay te ñoom moo leen jàngal politique kay no bien sûr non non surtout surtout xam nga xam nga nit man li ma gëm du costume rek wala nangam fii nag suñ président yi yàgg nañ fi nag même costume yi nag ñu baree bari fii lañ koy ñawee nag euh, sur mesure man boo gisee sur mesure laay sol. non non non non fii la non non costume tubaab bi yax na cee jot de costume. costume turquie yi maanaam Europe sax turquie yeeg fa dugal Afrique gii la jógee. leer laa lay wax boo demee ca mbanaar ya graphiste ya fa nekk nga xool leen am na ci col ko yoo xam ne di nga gis am na nag luñ ci yokk. mais bu ñu koy wax Europe Turquie ngay